billahi min asheytaan irrajim bismillahi irrahmani irrahim barakat cheikhil xadim ci kilifteefub cheikh mouhamadul muntaka xalifa général des mourides yàlla na fi yàgg lool te ci njiital sëriñ ahmadul muxtaar mi xalifab cheikh mouhamadul moustapha ak ñu kër gi sëriñ cheikh mbàkke madina ak sëriñ moustapha mbàkke xalifa cheikh mouhamadul lamin ci teewaayu Serigne Cheikh Mbacke moom Serigne Mbacke Madina Serigne Cheikh Gaynde ak Serigne Cheikh Mbacke Aliou moom Cheikh Serigne Aliou Mbacke moom Cheikh Mouhamadul Moustapha ci teewaayu Serigne Coro ak Serigne Ousmane Mbacke Gaynde Fatma ci teewaayu Serigne Hassan Gaynde Fatma ak Serigne Baara moom Serigne Mahmoudan ci teewaayu Serigne Abo Mbacke soxna Bintu ak Serigne Xaadim Mbacke moom Serigne Sidil Muxtaar ak mboolem njabootuk Daaru Xuddos gépp ak talibe yi noo ngi fii tey ci daarul xuddus ci kanamu kilifa gu mag gi di sëñ ahmadul muxtaar bu ñu fi toogee nag xelum nit ñëpp danañ dellu ci bis boo xamante ni nii kenn fàttewu ko muy ñaar fukki guddi ci aw tamxarit di bis bi nga xamante ni nii ci la Cheikh Mouhamadul Moustapha jëlee woon sunu yaakaar sëriñ Cheikh Ahmadou Bamba andi ko ci dëkk bii nga xamante ne ni moo ko gënal ci pàkki suuf yi bis bii nag Cheikh Mouhamadul Moustapha waxoon ni juboo na ak boroomam ci képp ku fi fanaan sunu borom jéggal la say bàkkaar bis boo bii la Cheikh Mouhamadul Moustapha waxoon ni yitte ju jar bañ a fanaan si Tuubaa guddi asirina muharram sunu boroom sakku ko bisboo bii la waxoon ni mbooleem ñi nga xamante ne nii ñu baax lañ ci diggante kaw ak suuf te gunge woon Cheikhul Khadim saa yu bis boobee delsee danañ ñëw fii fanaan fi ak moom bis boobu la waxoon ni képp ko fi fanaan ak ñoom mbaa nga riisoo fi ak ñoom suñu borom dana la jéggal say bàkkaar. ginnaaw bu ñu sant yàlla jullu ci yonte bi alayhi salaatu wasalaam gërëm ku tedd ki ñoo ngi jéggalu ci kàddu gi ñu yëkkati ci kanam suñu sang bi di bàyyi Ahmadou Makhtar. waaye ginnaaw ndigal la ñu yëkkati ko eh, ci turu njaboot gi yëpp ci eh, rawatina. cheikh Mamadou Moustapha mi nga xam ni mooy jëwriñam di ko nekkal ci njabootu cheikh Mouhamadul Amin Baara yebal ñu mag sëñ xaadim mii ñu ñëw ak njaboot gi yëpp teew fi fas ko yéene ànd ak yow ni nga ko bëggee woote ko bis bi nag ni ko sëriñ bi waxee dégg ngeen ko mooy bis bi nga xamante ne ci la ku tedd ki ñibbisi fii tànn bis boobu ngir dëkkaale ko ak boroomam te mooy bis bi nga xam ni moom la ñaanal yàlla suñu boroom ni ko maa ngi sàkku ci yow nga defal ma bis bi gën ci samay bis mooy bis bi nga xam ni ci laa lay ñëw dëkkaale si yow bis boobu kon moo dëgmal si nekk ñaar fukki fan ak juróom-ñeent ci weeru tamxarit bi di ñaar fukki guddi ci weeru tamxarit bi incha allahu muy dajeeg ñaar fukki fan ak juróom la le 28 août sëriñ bi nag di ci woo jullit yëpp rawatina taalibe yi. muy sàkku ci ñëpp itam fu waay nekk nga màggal ko ci alxuraanul karim ak xasaayiti sëriñ bi ak tudd yàlla xam ngeen Cheikh mu al Karim mi nga xam ni moo jëkke woote màggal gi dégg ngeen ni ñu ko waxee mooy ab jullit waxuma la taalibe waaye kuy jullit te man ko war ngaa ñëw fii fanaan si Touba ngir màggal bi si boobu ndax li ñuy xante woo ñun jullit yi mooy tàggoog ak i bàkkaar euh, kon nag koo xam ne danga nga ñëw yàlla musul la ci jéggal la tàggal tàgg nga tàggoo ak i ba mel ni mel ni bis bi nga gane woon àddina loolu jar na fu waay nekk nga bàyyi ko ñëw fekk si bis bi. bismillaahi rahmaani rahiim. mbokk yi fi daje eh, di yëgal ñi teew te te gis leen wax li waral daje bii tey muy màggal. gi ñu daan defal gi ñu daan defal sëñ Touba at mu nekk moo jege moom lañ moo tax ndaje fi di ko yëgle ginnaaw bu ñu sëñ Mountakha Mbacké ba am ci maam digal moo tax ñu leen ko yëgal ko def ñaar fukki fan ci mois de août euh, léegi rekk dañu ko màggal ñu yëpp ne dañu ko màggal ñu ngi ko defe daaw muy sàmmonte ak yi nga xam ne moom la jàngoro ji di bañ muy ku ñëw màggal si nag takk seen masque te raxasu respecté dànnante bi loolu may tax mucc ci yàlla dogal mën naa def ku ci jaar yàlla musal la ci tawat ji danga nga ci musli yow itam ndax doo wàll kenn kon ngi ñaax ñëpp ñu sàmmoonteeg yooyu ñu ko defee yàlla mën na ci musul euh, léegi nag noo ngi yëgal ñëpp bépp taalibu mën a ñëw na ñëw boo ko mënut nga def ko sa kër jàng alxuraan jàng xasida berneel ñi nga dëkkal te ñaanal ci tax ñuy màggal ñaanal jullit yëpp na yoon murid yëpp kon mbokk yi ñoo ko déggandoo mbokki jullit yi umma islaami yi sëriñ baa ngi yëgal ñëpp di leen fàttali bis boo xamante ni ni bis bu am solo la ci ci yoon wi bis bu rëy bis bu suñ borom doxañ lu bare bari ngir bis boobu yi la sëñ Tuubaa fanaan si ci dëkk bii nga xamante ne ni képp ku ko bëgg a siyaare fi nga koy fekk inna allazina sahidu fil maaraka mujahidina kullu abin musrikin li na walun kulluhum yaxbitu nii wa kullun saairun li watani fii la sëñ Tuubaa dëkk mu ngi koy fàttali ñëpp waaye ñu xam ni ci biir réew mi ak bitim réew mi fépp lañ koy taxawe ca Côte d'Ivoire bokki taalibe ya fa nekk yëpp àndandoo nañ ci njiital sëñ Cheikh Mariama di ko taxawoo foofu ca Mali itam bokki taalibe fa nekk yëpp ci njiital taalibe Daaru Xuddos yi ak sëriñ Maam Balla Mbàkke ñoo nga fa di ko taxawee Italie itam ak ni contexte bi demee tax na taalibe yi ñoo ngi koy taxawee kenn ku nekk ca barab yam nekk waaye sëriñ bi joxe ndigal itam ci mboolem diaspora bi muy daayira yi aju ci kiir kër gi ñu lëkkale seen bopp mu doon benn ñu wax ni seen bisub siyaar ajjuma ji nga xamante ni nii moo sës ci màggal gi bu delsee lañ koy def waaye bëgg nañ ñu defandoo ko benn yoon àndandoo di yëkkateendoo di tegandoo. tey dënkaane nag mboolem li nga xamante ne ni moom la waa santé di digle ñu sàmmonte ak moom waaye nu lu ci yàlla te bàyyee ko suñu bopp te doyloo ko te xam ne li yàlla namm rek loolay am waaye li nu digal nu sax ci te fas ko yéenee jëfee ni nga xamante ni noonu la ko sëriñ bi bëggee ñuy def tawasul ci jëmmam ak barab bii mu toog ak ñi mu wuutu. ak ki tax muy woote ak kii ko fi nekkal suñ borom jële fi mbas mépp jële fi yépp jafe-jafe indi fi naataange barkeb sëñ Tuubaa wasalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakatu